al madina travel salum jidda sen info international ak tarixa tijaniya in america si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo leen may émission bu mag bii di seen bismillahi arrahmani arrahim ci suñu yal na yàlla gërëm ko anna rasulallahi naka sangu-sang yi ki yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama yal na yàlla saxal ci moom xéewalam ak muccalam qaala wax na kullu ummati sama xeet wi yëpp yadxuluuna aljannata daañu dugg aljanna sama xeet wi ñëppay dem aljanna illa man aba xanaa ku bañ qiila ñu ne ko wa man yaba ana kuy bañ aljanna ya rasulallah yow mi yàlla yebal sallallahu alayhi wa sallam qaala mu man ataani man ku ma topp daxala aljannata tabbi aljanna wa man ku ma moy faqad aba bañ képp ku ma topp nangu nga daa dem aljanna ku ma mooy nag yaa bañ ne doo dem aljanna rawahul buxaari buxaari solo na xadis bi yàlla boole ci ñi nangul yonantu sallallahu alayhi boole ñoog moom ca gën jaa kawe aljanna gën jaa neex musal ñu musal suñu njaboot ak ku xam kuñ xam ñun ci mooy ndigalu yonant ak ci dem safara hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al abonné leen ci réew mi ak ci bitim réew. taala wa barakaatu. mbokk yi dégg sunu kàddu li xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annuel dîner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci imaam Muntaqa Sakho. borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag ji ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la imaam Muntaqa Sakho mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imaam Muntaqa Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi la nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla Imam Mountakha Sakho bis ba si na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne satan ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da nga mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé bis baa ngi noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat yi ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le vingt trois décembre fii ci stade Tan Island